ganu ko suba si tey jii muy euh, Youssou Diallo euh, sëñ bi Diallo ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu di la fay di la siyaare. may fàttali kon yow yaay njiital club Sénégal émergent nekkit euh, président conseil d' administration bu Sonacos démb déglu nañu discours bi nga xamante ne njiitu réew mi da koy safoo di def saa yu kon fête indépendance jibee mu nekk discours yi nga xamante ne toll na ci fukki simili ak juróom loo ci mën na jàngate ci kàddu yooyu mu yëkkati. waaw maa ngi gërëm di la sant di gërëm waa réew mi et di di ndokkeel Sénégal ci suñu indépendance nga xam ni mooy eh, bés bi nga xam ne la réew mi moom boppam ci bu def gannaaw bi ko bi nootee woon eh, di ci sargal eh, mboolem sénégalais yi rawatina ci président de république bu def nga xam ni tegu na ci yoon guddul jafe-jafe yoo xam ni dañu war a fexe ñu saafara ko kon daal maa ngi koy rafetlu di ndokkeel président de la République ndokkeel aussi Sénégal yëpp gannaaw ndam bi nga xam ni suñu doom yi ak suñu jarbaat yi am nañ ko ci coupe ku lépp ni Sénégal ko ak seen qualification bi nga xam ne am nañ ko ci li ñuy wax euh, encore ñaareel yoon bi teg loo ci ci coupe du bi di wane ni c'est du waaw euh, ci ponk yi nga xamante ne kon mën nañ ciy jàpp bokk na ci li nga xamante ne mën nañoo gis ni méngoo na sax ak euh, thème bi euh, nu mën a def ba kon mën suñu bopp ci wàllub dundin ndax li ñu jàpp ne kon jamono mu ngay gën di métti àdduna yëpp di ko yëg ci yokkuteeg njëgu yenn dundi moo tax mu jàpp ni faaw ñëpp dogu ci ci wàllu mbay mi jaarale ko foofu sax wàllub napp gi ak càmm gi ndaxam xam loolu mën naa nekk sëñ bi Diallo club sénégal émergent maa ngi fàttaliku ñu ngi ko sos ci deux mille seize hmm. te booba dafa fekk président Macky Sall bi mu ñëwee ci la en deux mille quatorze ci la sànni nga xam ni mooy plan sénégal émergent mooy plan nga xam ni mooy yoonu yokkute pour réew mi et bañ ko xoolee ñun añu ay borom xam-xam bi ay xeltukat ñu gis kat kii gis-gis bi am ci jëm réew mi leer na te gis-gis boobu nag ñu ngi koy sukkandiku d'abord ci euh, nañu fexe ba réew mi euh, jël mbay ak càmm ak napp ak yu mel noonu mu sukkandiku ci pour mën jëmale réew mi kanam ndax li ëpp ci réew mi foofu la nekk ci maanaam ci dëkku kaw yi rax ci dolli loolu mooy li nga xam ne mooy tax Sénégalais yi mën a moom seen bopp te moom sa bopp dañuy faral di wax bay dundee waaye man damay wax moom sa biir réew mënul moom boppam te moomul biiram maanaam li muy dundee li ci ëpp mu koy jéggaane bitim réew donc président Macky Sall ci loolu la déparé ba tax ñu mel ne ñun ñu ñu jàpp ci histoire nag def na ko dégg ndax gis nga bi Covid bi ñëwee lépp liñ daan jënd bitim réew soit taxaw na wala yokku na wala am ko jafe na mu indi ci réew yu bare bare ay jafe-jafe fii ci senegal nag yàlla dimbale nañu ba ci Covid bi li tax d'ailleurs réew mi dugg ci li ñuy wax récession maanaam économie bu dellu gannaaw lool mbay moo tax kon nag euh, dafay sargal ay option et tey jii Covid beeg li am Ukraine ñëw dolli loolu mu wane ni euh, jéego yi ñu def ci mbàllum ceeb nga xam ni bi président Macky Sall di ñëw téeméer boo jël euh, juróom-ñett fukk dañ ko doon jéggaane bitim réew te tey jii ay la téeméer boo xam ne ci ceeb la tamit ci réew mi léegi ñeent fukk yi moo jóge ci bitim réew kon nag ñu waneen ci ay ak yeneen fànn yoo xam ne ci wàllu mbay ci hmm. wàllu napp ci wàllu càmm ak yu mel noonu réew mi macha allah am na ci jëm na ci kanam daal réew nag boo ko bëggee jëmale kanam da jël lu ëpp ci nit ñi nekk di ci yëngu ba fexe loolu mu mën ko jëmale kanam. Hmm. loolu nag ci réew mi mooy mbay mooy càmm mooy napp ak yu mel noonu. dund lu nuy euh, kon liggéeyee wala boog lu ñuy béyee ci réew mi waaye tamit uh, bay li nga xamante ne moom lañuy dundee ci réew mi ni ko njiitu réew mi sàkko lan moo ci pàccu Sonacos bi nga xamante ne tamit yow yaay PCA bi. waaw Sonacos sax d'ailleurs dafay firndeel euh, moom sa sa sa biir parce que bu président Macky Sall di ñëw maa ngi fàttali ñu Sonacos ñu ngi fi doon Sonawar te nguur gi fi nekkoon ci bi président Macky Sall laata ñëw dafa jëloon Sonacos nga xam ne mooy presque entreprise bi gën a rëy ci réew mi di yëngatu ci li nga xam ne li ëpp ci baykat yi ci li ñuy dund muy gerte. mu jël ko jaay ko waa bitim réew. bañ ko jaay bañ gis nañu la ca mujj ak bi mujj taxaw mënatul sax fay ay soldu nekk ci metti mbay mi gën a sooxe ci loolu hmm. président Macky Sall bi mu njëkkee ñëw eh, li mu njëkk jël ci mesure mooy jël na waat Sonacos eh, entreprise boobu di Sonacos eh, Sunaor ci gafaka ko Sonacos ci lu bare boobu bi mu ñëwee fexe na léegi gisatu leen fii bon MP gisatu leen fii mbapat gisatu leen fii yenn jafe-jafe yi nga xam ni la béykat yi nekkoon bu njëg bi doon jar daanaka euh, euh, ñaar fukk ak euh, maanaam cent cinquante franc njëgu gerte kilo léegi kilo bi dem na ba trois cent franc nga xam ni kon ci wàllu mbay ak am na ñu ko jëm Sonacos léegi macha allah delloo si na non seulement dawlin ci caabalu Sénégal yi waaye ñuy yokk ci wàllu diversification bindu jur gi ñu ngi koy defar ñu ngi defaraat euh, lu mel ne eau de javel ñu ngi lu mel ne vinaigre ak yooyu yëpp daal. Hmm. waaye jafe-jafe bi Sonatel dafa am tey jii mooy fexe ba euh, matériel bi nga xam ne dafa màggat ñu yeesal ci euh, xëy na parce que boo nee moom sa biir am li ñuy wax souveraineté alimentaire. Hmm. dafay tekki ngay bay lu bare. nga koy loolu ngay bay ñu koy liggéey di ko defar ci réew mi ci waa maanaam daal di produire sénégalais waaye aussi di transformer sénégalais et aussi di dundee sénégalais loolu def naan lu am solo la te Sonacos ñu ci taxaw jëm ci ci fànn yooyu benn parenthèse rek ban ma nga mën a def déjà euh, ci campagne ren ji ak njiitu réew lu mu wax ni kon euh, yokk na ci enveloppe bi mu ci doon duggal waaw kooku moom je crois président bi muy ñëw euh, euh, li ñu wax euh, budget campagne agricole daanaka quarante milliards la la tolloon. Hmm. tey jii daanaka presque ful na ko ñaari yoon parce que mu ngi soixante dix milliards. te defe naa ne loolu am na solo naam bare na waaye nag ragal naa ne mën nañ ko sax gën maanaam daal il faut ñu seet am amu réew mi ni mu toll. te ñu seet nañuy def ba. pas-pas bi ñu am tey jii pour moom suñu biir eh, ci réew mi ci wàllu bay ci wàllu industrie agroalimentaire ak de transformation ñu dugal ci alal bu bu ñu toll boo xam ni dana fexe ba fii ak ñoo def eh, juróomi at fukki at réew mi bu moomal bopp moomul boppam aussi ci lépp ci wàllu dund Euh, moom ko mhm. euh, ñu ngi wax ci àdduna fépp naan euh, ñëpp dinañu yëg xëy na njeexital caaw luy dox diggante Russie ak Ukraine ba sax Sénégal tamit daanaka mën nañu jàpp ni du ci mucc yow en tant que njiital club Sénégal émergent yan pexe ngay sàkku ci autorités yi ñu mën fa jaar bu ko defee ñu bañ a dund lu métti ci crise boobu. waaw dèjà li may njëkk rafetlu mooy taxawaay bi ci Sénégal am ak à travers président Macky Sall parce que daan nañ gis ñaaru yu mel nii bu amee Sénégal day jékki-jékki rek ne man kat xëy na comme que waa France ak yi ñoom États-Unis ak ñooñu laa àndal mu am taxawaay boo xam ne day fës ci u côté boor boobu waaye léegi Sénégal ni muy doxee bi fi président Macky Sall nekk ba léegi mooy Sénégal d'abord li muy jiital mooy ay ay ni ñuy wax ne réew amul ay xarit waaye ay intérêt kooku defe naa lu ñu lu ñu ñaareel ba mooy crise Ukraine bi li mooy eh, ni président waxe woon réew mi fexe moom biram te loolu ci wàllu woowu d'ailleurs eh, bi mu ñëwee nee na non mbay waaye recherche agricole mooy maanaam fexe ba nga xam ni ci wàllu xalaatin ak wàllu xarala ak xereñ ñu fexe ba réew mi lépp loo xam ne dañ ko fiy dundee ñu fexe nañ ko fi bay te ci loolu ISRA nga xam ne mooy institut de agricole seet na wàllu blé te parce que blé moom la ñuy defaree mburu te sama mbokk séeréer yi bëgg nañu mburu lool ba nga xam ni eh, président Macky Sall eh, def na ay jàngat ba ba ba trouvé nañu li nga xam ni ay xeetu jiwu la xam ni ci loolu ñuy wax blé xam ne daañu ko may mbay ci réew mi et def naa ne loolu nag léegi ci des mooy def mettre ko en pratique pour xam ne réew mi dana mën ci wàllu nguróog yu mel noonu. Hmm. muy produire blé boo xam ne hmm. na aussi jàppale boo xam ne gouvernement bi ci mag président def na ko ci wàllu njëg yi ba nga xam ne lu mel na dëwlin lu mel na suukar lu mel na ceeb et am na taxawaay boo xam ne njëg yi dooroon waaye tey jii. léegi la fa la ci marché bi dafa mel ni safaan wala ñu gis hmm? ci marché bi dafa mel ni gisuñu wàññite googu. am ah, na xam nga toujours dana am ñoo xam ni ñoom eh, eh, du ñu bëgg njëg yi wàññeeku waaye nag li ci ëpp moom njëg yi njëg wàññeeku na te defe naa incha allah kanam nga jëm. Euh, ci beneen ponk ci kàddu njiitu réew mi yëkkati démb ndax euh, bokk na ci luy ëpp solo muy euh, coowal Casamance mu mel ni kon dogg na nee na ngir wéyal opération militaire yi léegi ci kon option militaire boobu nga xamante ne dafa mel ni kilifa yi ci moom lañu ñu sóobu naka nga ko jàngatee. waaw kooku maanaam wax option militaire sax lu xaw diis la parce que am nga problème Casamance daanaka. réew mi euh, dafa président Macky Sall dafa mos gëm ni bu ñu góorgóorloo ci waxtaan ak euh, diisoo ci diggante doomu réew mi parce que ñu nekk Casamance xëy na nekkoon ci yenn mbir yi xëy na dañu yaakaaroon ne xëy na dañu réeroon wala xëy na seen gis-gis dafa xawoon jaxasoo ñu waxtaan ba ba jubóo waaye nag bañ demee ba ci biir gis nañ ni def ci am ñoo xam ne particulièrement ñu nekk ci wetu frontière bi ak Gambie te ay nit ñoo xam ne daal léegi daanaka nekkatuñu di xeex li ñuy wax indépendance waaye nag dafay niru mbirum saay-saay yoo xam ni dagg àll bi bant bi jaay ko ci ay waa bitim réew wala di bay yàmba ak yu mel noonu di ci dund pour di notre population yi rax ci dolli fan yee ci gannaaw gis ngeen ni dem nañu sax ba enlever maanaam jël ay nangami soldat jël leen maanaam def leen espèce otage léegi nag euh, ci le président Macky Sall ni kat réew mi mënul am nag ay nit ñoo xam ni dañuy sos ay parti yoo xam ni dañ fay nekk lu leen neex réew mi réew yoon la lépp dafa war a yoon donc opération de daanaka maintien de l'ordre maanaam fexe ba euh, sàcc gi ak caay-caay saay-saay yi réew mi xeex ak ñoom ci wàllu yooyu comme ni ñu koy xeexee fépp ci réew kooku nag ñu ngi rafet bu taxawaayu waa réew bi yëpp ci gannaaw président Macky Sall waaye rawatina ci nag ñi xam ne ñooy waa Casamance nga xam ne même cadre Casamance yi génn nañu ñu fexe ba balaa yàgg vraiment seen ay mbir ak seen taxawaay mu raaf foofu ci Casamance te defe naa taxawaay boobu ci la président nekk te waxaat na ko nii dana fexe ba loolu vraiment mu jox kooku mu ngoog euh, maay fàttali kon yow yaa njiital club Sénégal émergent nekkit président conseil d' administration bu Sonacos sëñ bi Diallo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax.